الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di gisal ci nuyoo bi ak ziar bi saaxibul fadila wal wasila Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram waaye noonu lañ koy ñaanalee mboolem njabootu Serigne Touba gi di njëkkee kàddu yi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey ñu ñëw fii ci Baqiya ñëw fi tey ngir soppe boo xamante ne taalibab Serigne Touba la woon bu ko xamante ne ñu bëri xamoon ko ci dëkk bi xamoon ko ci réew mu nekkoon jëmm joo xamante ne naam at yim am ci liggéey bi bariwul ndax xëy na booba ak léegi bu ñu koy takk ci ñetti at lay toll ci métier mi mu nekkoon nga xamante ne ci la ko ñëpp xamee yàlla dogal mu nekkoon taalibib Serigne Touba boo xamante ne ak taalibim fu mu toll daf ko daan wane waaye tamit ay kàddoom ak taalibi daf ci daan feeñ ba taalibi yëpp bëggoon ko kilifa yu bëri bàyyi woon ko xel lool ndax liggéeyam bu am solo ba tax na tey jile bi yàlla dogalee ab dogalam ci moom démb muy Moustapha mbay ñu gën ko xam ci Mbaye Sapar Sapar coloré gum am ak Rafa TV ndax gis ngeen li nga xamante ne moom moo di seede si nga xamante ne doon na ko seede ci Rafa te ñu ko doon estati bi mu bàyyi ko euh, ci àdduna ak léegi ngeen gis seede si ñu amoon ci moom tax ba tey jile ñu jóg tey ngir fas yéene ànd ak ay mbokkam naqar wi waaye ànd ak mbokk taalibe li nga xamante ne moom moo di naqar wi jëmi ci jëmm gi sell jooju di Moustapha Mbaye euh, fas yéene dugg ci li nga xamante ne moom moo di baqia euh, teewee li nga xamante ne moom moo di denc bi ba lépp loo xamante ne li fi am la rek ndax xam ngeen ne kilifa yi bari gis nañ leen fi gis nañ fi ku ci mel ne Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba romb nañu léegi ak ku ci mel ne Serigne Mountakha Gueye mi nga xamante ne jàngkatu xasida la ñu gën ko xam Serigne Mountakha Gueye fëlku ak yeneen i kilifa ñu ngi fi incha waxtaan ak moom des jël tamit ay kàddu yu ci moom mi nga xamante ne moom moo di mbay sapar sapar nga xamante ne ah, liggéey bi mu doon lépp bégal doomu aadama yi la waaye lépp mu tegoon ko ci ak mu tegoon ko ci al insaniya muy nite waaye lépp mu tegoon ko ci nag bëgg ah, talibé Serigne Touba yi ah, kon ñu ànd ak yen ci kanam tuuti lay doon ñu am ak yeneen i réaction yi ñu jël muy ay seede ci nit ñi بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحسلة عن شيوخ بالإشارات mbokk yi euh, téléspectateurs yi bàyyi xel seen site internet Rafah TV comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñi ngi ci biir Bakhia euh, ngir teew fii ngir denc mbay mi ngi a xam ci mbay sapar sapar mu nekkoon jëm joo xamante ne kenn dootu ko présenté ti maa ngi taxaw ak koo xamante ne nag responsable politique la ci Mbacké ñun ñëpp xam ko muy xaas mbay euh, nekk jëm joo xamante ne xam nañ ne teewaayam fii du hasard kon sëñ xaas ma jox la kàddu yi nga nuyoo ak téléspectateurs yu Rafah TV waaw ku baax ñoo ngi leen di ziare di leen ndokkeel baax a baax di wax ne mbay mi ñu ñaar ñoo bokk benn baay muy sama rak di sama xarit di nit koo xam ne ku bëgg sëñ Tuubaa la ku bëgg sëñ Fallou it ku bëgg bokk la parce que ba suñu ëttu maam bi nga xam ne mooy ëttu maam Ablaye Mbaye sëñ Fallou heure bu ci mbay duggee luy joxe ak bokk luy defar ak bokk lay wax man mii daf maa def mag def ma lépp yàlla dogal na képp koo xam ne nga bokk ci famille bi sax bu déggee ñaari ñoom jafe-jafe sax. danaan moom maag yow danañ fa dem waxtaan ak ñoom pour ñun mën a déggoo di ko ñaanal daal suñu borom yàlla bu ko cat jiitu te ñii fi ñëw ñëpp kenn ku ci ne mbay moo la fi indi ñun indiwuñ fi kenn ku fi ñëw rek jëmmi mbay la fi indi kon daal lim gën a soxla mooy ñaan yàlla na ko yàlla gën a xaare àjjana te lim fi bàyyi yàlla na caal teg loxoom. waaw comme ni nga ko waxee rek mbay moom vraiment dafa nekk koo xamante ni fi mu ñu féetewoon ñun suñu nday sax ak suñu baay féetewuñu fa ndax bokk ak say rak nekk Touba te guddeeg bëccëg mbay dañu woo lu rafet rek dañu wax wër na Serigne tubaa man démb la ma woo ñetti appel jotuma mu bàyyi ma focal barki Serigne Touba fekk yoon boobu du ma ko wuyoon xañ sax lii laay dégg mais doon na nit koo xamante ni vraiment li ma wax suñ groupe famille bi démb rek nee naa leen mbay fi ma taxaw man sama papa taxawu fa sama mag yi ma bokkoon ndey ak baay taxawu ma fa ndax nit la koo xamante dafa sori woon ci ñun barki Serigne Touba waaye di ko ñaan rek cat bañ ko jiit ci bàmmeel ndax dëgg yàlla nit la koo xam daal sama cand gi rek gis na bi ma ko tuddee nga xamante dasee ñëw def ci lu am solo nga xam toujours du toog deux fan ñaari fan yoo xam woowu ma ne ma cuun defal li defal lii te li ma li gën a neex mooy mbay image image Touba da ko doon sàmm ñi ñi xam ay artistes lañ nekk fii dañ daan woo duñ dugalee dara mu woo leen sa waay di leen xam ne yéen Touba ngeen dëkk bokku leen ak ñi dëkk Dakar di leen xool seen i image lépp loo leen dugal rek da xam ne bis da ñëw da ngeen fi loolu la wanewaat te tey moom gis na ay vidéo mu dem ci koy ñaanal baax baax baax suñ aar ko àjjana daal waaw. jërëjëf yi ki mooy Thioune Boutique moom itam bokk ci euh, artistes yi nga xamante ne dañuy yëngu ci dëkk bu sell bi di Touba waaye ñoom itam ñu yor drapeau Touba fu ñu dem rek di wane ak euh, kenn ci ñoom nag bàyyi ko fi tey jile muy mbay sapar sapar ñu gënoon ko xam ci mbay sapar sapar waaye jëm la woon yoo xamante ne soo ko xamee rek boo jaxasoo ak moom xam ne taalibe Serigne Touba la lu am Serigne Touba ko gënal fu ma wax ci aduna boo gisee euh, loo ma sa wax sax ci yoon wi da gis mu jël kàddoom tontuwaat ngir lan ngir taxaw drapeau boo xamante ne daf koy wane toujours muy wax taxaw ngir Serigne Touba yaay uluman min al mawla saniyati ko gis barab bi ni mu feese xam ni baax rek am solo waaye mu doonoon nit ku yàlla baaxal koo xam ni lim daan dox mooy reetaanloo doomu aadama yi di leen bégloo te euh, wax dëgg yàlla loolu moom ku koy def euh, euh, amuñu safay xanaa di ko ñaanal fi mu jógee fa mu jëm dàqal ko ko fuuf yàlla xaare ko àjjana Serigne Fallou teeru ko ndax ku baaxoon la ku yàlla baaxal sama jàng yi ma mujj a def rek di sargal soxna Baali taxaa ñëw na ci wax dëgg yàlla foo ma saan a tëjee moom mu reetaan kaf wax dëgg yàlla bi ma ko mujjee gis bi sama jàng yi jàllee kër Afa Jaw la mu ñëw ci xewoon yi ñu ñëwee rek daanaka lu gàtt gàtt reetaan loo na kon yàlla ko yàlla xaare àjjana ko amoon yitte la amoon nag nit ñi jàmm Euh, yaatu woon ba pare ouvert wax dëgg yàlla xeebul kenn ku am bis mu demal la kon yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barke Cheikhul Khadim wax dëgg yàlla ku baax daal la ku baax la dëgg yàlla. jërëjëf sëñ Bassirou bari bagage lay bàkkoo mooy euh, Bass Fall kenn du ko présenté ci euh, dëkk bu sel bi di Touba sëñ daa Diouf yooyu tam xam naa ne doom la ci sëriñ Abdou Lahad Diouf jànkatu xasida waaye tamit day yëngu ci xasida yi moom itam ñëpp xam ko ci dëkk bu sel bi lan moo nekkoon relation bi nga xamante ne amoon nga ko ak kii di jëmb jëf bàyyi ko. waaw comme ni ko Bassirou Fall waxee rek nit ku baax la woon li ñu mën a seede ci moom mooy bëgg sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi tolloon na ci moom foo xam ne fu mu fekk jàngkat yu ndaw yi nii rek day warloo ñoom lenn àddee xasida yi fu leen fekk ba bi mu fi bis bis bi mu fi jugee bis bi ko jiir ci guddi di gisante nañ man ak moom ba ñu waxtaan ci xasida yi muy jàngantu di di di wax ak nit ñi di kaf ak ñoom di ree far bi ñu xëyee yàlla jël ko liñ mën a seede ci moom daal mooy ku bëggoon sëriñ bi ku bëggoon Sëriñ Tuubaa la bëggoon ñooñ bi jàngal sëriñ bi foo ko fekk suñu waxtaan ci suñ jubaa mu tàggale ko sagom alalam du ko boole kenn ku tabele woon it ñu mënuñ leen lenn du di ko ñaanal rek sëriñ bi teere ko ci àjjana yi gën a kawe irsaadi qablahuma min jaalibaati quruurin ma shaqaawaati ci taxaw ak jëm joo xamante ne ñu ngi wéy ci Serigne Keba Thiam mu nekk directeur Daaru Rahman Bass xam naa dañ ko jox kàddu rek mu def seede jëmm ci li nga xamante ne mooy jëm sell ci waaw di wax ne inna wa inna ilayhi rajiun di ñaan suñu borom yërëm ko te jéggal ko xaari ci gën a kawe barki Cheikhul Khadim ñu naan ko Moustapha Mbaye di eh, ab jullit di ab murit di ab taalibi xàqan ku bëgg Cheikhul Khadim ku am ngërëmal Seexul Xadim ak waa këram tamit nag dañ koy ñaanal yërmande suñu borom wàcc ci kawam man de sama sama sama wëllëre la woon sama lépp la woon wax dëgg yàlla naa ñu amee naqar mooy dem rek waaye nag ñu delluwaat ci suñu borom ñaanal yërmande suñu borom yàlla xaare ko àjjana ñi nga xam ne ñoo njaboot gi suñu borom bàyyi ñu xol waaye ku baax la woon ku gore la woon ku bëgg Sëriñ Tuubaa la woon ku rafet ab xol la woon daawut fekke dara lu ñaaw daawut fekke dara lu ñaaw dara lu ñaaw yàlla bu ko cat jur ci bàmmeelam barki Cheikhul Khadim am nañ ci moom yaakaar tamit nag macha allah jërë ngeen jëf. Moustapha Mbaye tam wàccub liggéey démb euh, ñu ngi ñaan yàlla yërëm ko xaare ko àjjante yeexam yàlla dogal nag bi soog bi am ñun fekkee nañ ci tàmbali bi. gannaaw bi ñu jokkoo ak sapeur pompier ñu def ci taxawaay bi ñu ci war a def gendarmerie ndi itam def ci taxawaay bi ñu ci war a def procureur it ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ndax démb la ajuma waaye bi mu yëgee nii accident bi am na moom Moustapha Mbaye ak ñaar ñi nga xam ne xale yi ci faatu bi ñu jokkoo euh, ñi nga xam ne ñoo nekk tribunal toog nañ fa ba vingt une heure vingt une heure vingt deux heures ndax di xaar li nga xam ne mooy kayit yi ngir signé ko ngir ñu mën cee jot ci ajuma ji démb ndax xamoon nañ ni samedi beeg dimanche bi buñ ci àggee duñ ci mën a jot loolu tam ñu ko ci sant bu baax di sant si bi di xam ne tamit seede yi ñu ciy def rek mooy ma xam ci moom yàgg na ndax depuis 2006 ànd nañ ci Safinatu Amaan di liggéeyal sëriñ bi muy jàng karaté may ma nekk ci saal bi di jàng karaté bu ngoon jotee ñuy xëy di liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bu sell bi ci gaar beeg yu baree bari yoo xam ne doon nañu ko am waaye li ma xam ci moom daal mooy ku ku rafet xol la ku mën a jubale ay doomu aadama la ku bañ lu naqari doomu aadama ndax lu mu gis lu nar a ñaaw mu taxaw ca lam ci war a def ca lu rafet loolu xam naa ko ci moom seere tam ni ku bëggoon sëñ Fallu la waaw loolu moom xam naa ni ku bëggoon sëñ Fallu la waaw ku bëggoon sëñ Tuubaa la ku bëggoon doomu aadama la moo tax boo gisee dëj bi ni mel ni lu bari ñu war ko war a jàngat mooy nit dees ko yëg yëgoon nañu nag ku yëg doomu aadama yi la ku jëflante ak doomu aadama la waaye nag rafet nañ ci moom jot ndax ku ne xam na ni sëñ Tuubaa moom kenn du ko yaakaar se yaakaar di tas te yaakaaroon na sëñ Tuubaa yaakaar sëñ Fall di ñaan yàlla yërëm ko jéggal ko xaare ko àjjana te yeexal te képp koo xam ni doxoon nga ñëw fii ngir lu baax ak yéene sa tànki ñëw ak sa tànki dellu yàlla na ko yàlla def njéggalu ko àdduna ak àllaaxira mbokk yi ñi ngi taxaw ak xamante ne dootuñu ko présenté ti muy Serigne Moustapha Guèye Sam di kilifa goo xamante ne euh, kenn euh, nattal lu wut bëggam lu baax tamit ñëpp safoo ko tey jii mu ñëw ci denc bi xanaa ma yëkkat euh, rek micro bi jox la nga seede kàddu yi nga xamante ne mu ngay seede jëmee ci ki nga xamante ne mooy Serigne Baye salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki adduna mbokki lislaam mbokki jullit ngi nuyu ñëpp di leen wax inna lillahi wa inna ci xibaar bu tiis mbir mu doy waar muy si Moussa Mbaye Sam doon nit ku baax ku tedd ku yaatu wàccab liggéey nga xam ne sama xarit la woon àllarba la mujj fi man mook soxnaam ñu toog waxtaan soxnaam am lu mu ko wax mel ni loola da da doon tàggatoo. mu jóge fi ne ma ajuma ca ngoon danañ gisee kon dafa mel ni lii moom la suñu borom naman eh, muy lu nu bett waaye nag dañ koy muñe yàlla ndax ci mbetteel rek la ñëwe noonu la ko suñu borom waxee mbetteel googu nag tey daal dal si tey ci foo xam ne eh, du doon lu métti ndax yàlla lu mu def dañ koy ne waaye lu lu diis ci jullit ji ak murid yi ak taalibe bi yëpp la eh, di ko jaale ñëpp nag ndax ni ma ko war a jaale ni nuñ ko war a jaale ñëpp man jàpp naa ne Moussa sama Moussa kuy xool internet bi di xool ay ay vidéo ak yu bari da ngay dégg mu di ma tudd di wax lu bëree bëri euh, yàlla la ñu seer bi ñu ko yëgee daara jii ci Touba ci Sam daara ja ca ngàcc daara yëpp dama leen woo ne leen jàngal leen alxuraan ndax lool laa ko deseel mooy ñaanal ko ñaari rakka yooyu nga xam ne suñ Touba dafa wax ne kun ko julli ñu jéggal ko ko maa ngi seere ci yàlla ak ab yonentam julli nañ ko ko ngir loolu laa ko deseel di leen sant yéen waa presse yi ndax ànd naag yéen àndin wu rafet jëflanteeg yéen jëflante bu rafet kon jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullah xayra xayraati tawfeex lan mooy kàddu yi nga xamante ne moom nga yëkkati ci kàddu yi seede ci gàttal waaw kàddu seede yi mooy di ko ñaanal ci yàlla ak Serigne Touba fee mu jëm Serigne Touba teeru ko te suuf si woyof ci kawam ndax mbay ku gis dencam bi rek denc bi rek seede na boppam ku gis mbooloo mi nga xam ne ñi amul woon oto sax doon daw ngir egsi loolu nag day wane ni suñu boroom xol lay fay ku jaxasoog mbay rek xam nga ko ci xol bu rafet xam nga ko ci laabir ba ñu bari sax wax nañ ni sogom bi li waral dëgg-dëgg métti gi ak laabir la ndax bañoon na dal ci ay kaw nit kon li ñuy seede ci moom daal mooy denc bi moom sedd na ba ñu ngi koy ñaanal nag ci yàlla ak Serigne Touba. fee mu jëm gënal ko fii mu jóge te loolu am nañ ci yaakaar ndax lam doon doxe ndax ñi ëpp ci mbooloo mi wax nañ ni da doon julli ji aju loolu dog ko ci yoon bi te ku ne xam ne ni nit na mu faatoo ci loolu lañ koy atte ci loolu lay dekki kon ñu ngi ñaan yàlla daal suñu borom yërëm ko te yeexeñu ci barke Serigne Saliou boo xamante ne doomu aadama yëpp war nañ cee jànge ak mbaax jàng ci gëm sa bopp mbay xam boppam léeg-léeg sama ma ku naan gëm sa bopp mais nit du gëm boppam day xam boppam mais mbay ku teel a xam boppam la ku teel a préparé la ku teel a sotti la waaw yàlla nag bu ko cat jiitu fa mu jëm kilifa goo waxal mun la man fu ma ko mës seetaanee reetaan na mais nag li ma ci jànge mooy ni ñu waxee ne ñaari xale faatu nañ ci dama ne mbay du faat euh, ñaari xale ci ci ci mu demee ci oto bi ba noppi di dundaat loolu na ci jaam ñi bàyyi xel maanaam mbay ñu ñu ñu ñu ne ko pëkk pëkk mu jóg ñu ne ko oto bi nga yoroon faat na ay doomu aadama ci ku mënta kaata doomu aadama kooku mënu fee nekkaat di bigal nit kon lii rek moo ci mën a topp ma nga jëm foo xam ne nag kurub Serigne Touba mënoo fa mënuloo fa dara. ku dul Serigne Touba yaakaaru ko yàlla na ko fa jiitu tey nag lay xam kan mooy Serigne sëriñ bi kenn du ko xam ci ay ay benn fee lu dul parce que fii dafa bari dafa bari dafa bari jalaw jalaw da tudd sëriñ bi sax am ku ne Maam Mor Faye am ku ne mbërum làmb am ku ne nangam waaye fee mu jëm Serigne bee toog mu yaay ne Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñetti yi maa ci man fop maa man ci géej gi fop mu ne ko si kuul Mbàkke mu ne ko ak jéeri ji toog ba yàgg ne ko ak yow man xëyaam gën jëm te booba te ba booba te nun bu nu taxawee ne sëriñ bi mënal nañu foofa dara mooy dañ koy gëm ndax ku ko topp dem àjjana lañu ñu wax salla alayhi ma taslimi baisuhu aska salatin biha nukfal xururati